gànna waxul lu bon tuddul seenub sëriñ bàmba la wax seen xoli ñuul ci ni këriñ waat naa ni yéen a bon baraw ay yéefër saa yéen tuddee seex bàmba ngeen am naqar tariixa yépp a wax xar baaxi ka ñu gëm murid yi maase bég ci lool ku ne gërëm ñu xëy ni bàmba aaye ngeen ni du fi am mbaa ko ko waxtaane ñu yàq ab deram at yee wéyoon murid yi ñoo daa jëkk a def seen émission ngeen di ca mer ba nar a fa gaar waale ak di fa tontante ñu koy ren ku ne def sab émission wax la la neex duufal sa mbër kaweel ko wax ca ma bëggeex ñu woolu gànna gànna wax na tudd leen te taasu leen téewul ñu jàppal ko ca een te bu ko neexoon wax yi ngeen fa wax ba dem mu di ca tontuwaay moom amul jotam bàmba la waxtaane akum njabootam ngeen di ca mel ku ne di waddal yuutam moom bu waxoon sax wax ju ñaaw ci seen njiit maay jëkk a weddi la amul lu muy tiit waaye waxul lu ñaaw tuddul seenub sëriñ bàmba la wax ngeen mer di funki ni fëriñ gis naa fi sax ñu jënd seen connexion di question ñee nga Facebook ca direct bay wax ay wax yu ñaaw yu mën yëngal ay gox ñee nga YouTube di commenter saaga yu ñaaw a ñaaw mel ni ku fàtte deega saa yu ñu tuddee Cheikh Bamba rek ci penc mi ngeen di ca jënd réew mi ngir barki démb laa fi jokkoo ak Ablaay ñu naa ko Ablaay Bisri mii di saawaay mu ne ma saaliw lu ne laa fi dégg ci waxu ñaaw teewul ma muñ ñi dégg moom ba mu demee télé bugaan bay waxtaan waxtaan wu neex murid yi bég di kontaan ndekete yoo saagaay ñoom mer nañ ca lool ba di ko saaga seen xol yu bonte ñuul am na ci sax ñu mer ba woo ko téléphone di ko tëkkoog di saaga ñii ñoo mën a fen gis sax ay nit yu ubbi seen groupe ngir da ci saaga yoon wi ak di leen xarab moo tax ñu gis tey waa ji bon ji joxe dog ceeb groupe naa gaana daal lañ ba ko dog nit ñi di yor kurus di jaamu yàlla ngeen yor ko ngir yàqaate ñàkk fulla yaa ni ñu wér dal gànna yaa muntaximu yàlla nga dee ci lakk yow ba xoyamu yaa ni ñu wér dal gànna yaa muntaximu yàlla nga dee ci lakk yow ba xoyamu nga ne ñu weddal ko allahuma damir yàlla nga xiif booy faatu deewaaleek mar su mara dan naaxu ga ak ñoom tabbat yàlla na doon posen bu gumbal say bët billaahi wallaahi danoo sonn ci yéen ngeen def ko noonu man mi di wax rek lu ne lañ may tàbbal ci sama Facebook lu ma wax ñu sikkal gis naa fi yoo xam ni bañ nañu ma lool te ni ma mel ci yoon moo tax duñ ma xool am na ci sax ñoo xam ni duñ ma nuyu te fuñ ma romb di ma jaay ak wuyu am nañu bañ sëriñ bi ak gaayam yi noonoo ko lool baraw bañu tubaab bi bis ba nañuy wax wax yu ñaaw ci sëñ bi ak gaay yi bi bëgg a tuur suñu añ bi ñii ngi naa seen sëñ bi del siwaatul géej gi la des te boo waxee ñu xóotal ñeneen ñi naa seen sëñ bi nekkul Tuubaa jaareem këram fa lañ ko denc boobaa am ci ñu yéen jinne ngeen def wéttal ngir ka demoon ga la des ñëwaatul ñeneen ñe naa yéen seen sëñ ñi sax daana way tubaab bi ak seen soxna ñoom ñu daa ko may xoolal ni bokkaale rëy te bés bu ne ngeen ni dañu bokkaale wax ngeen ko fu ne te nag jumaa ji a rëy ci Sénégal Tuubaa ne ñoo ko liggéey ci sun xalaal jumaa ji a rëy ci biir Ndakaaru ñoo ko liggéey ubbi ko ñëpp waaru dëkkub murit boo dugg am na jàkka mbaa boog jumaa ci ñoo ko fonki ràkka seen